والإعجاب والفلاهي من لم يلز بالمصطفى المفتاحي دما تب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد سادا دما الذي أتى إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد الخالق والفدائل ذوي الفدائل لفلي رمام كل فاضل دم جواري لسالواني به وقلبي رب من آفاني خلل مرتبة ليس ترى بخيره بمن مدى ومن يراه إذا أتى فحمل ما أحيا الفكر قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد خلف جواري وخلف قلبي بجاهي إليك ذهبا ربي رضيت بالله بمحمد رسول أربا إلى إله بامتداء المصطفى لأنه مدعو بعد السماء لا رسول الله من خوارج ما غاب سواه من خلائقه ñoo ngi jégalu di jéggalu sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di jéggalu ndax dafa amoon pasteefu bala noo teew mu teew yàlla dogal na nag ci juwee ay kàddu ak yeex a jot ci moom ñi ko yoral kàddu foofu jàpp ne kon nañ ko yërëm mu toog te ñu àgg te ñu dugg ci liggéey bi bi jumaa ji tàmbalee lan tàmbali yàlla dogal na bi mu yëgee ne ñu ngi kii nag mu ne fokk moom mu ñëw teew si ndax ci bis bi ci lay siyaare way juróom wi ci lay siyaarente mbooloo mi loolu donc lu mu tële tële te jaral na ko teew sunu kanam euh, gisee ak ñun sant nu gërëm nu nu sant ko gërëm ko mu siyaaree sëriñ bi doo ko dellu ci biir lu mu tële tële mi ngi ñaan yàlla may ko mu man loolu noo ngi koy ñaanal yàlla yàlla jàppandal ko mu man loolu bu faaw di nuyu mbooloo mi nag ci turam ci kàddoom la ñuy waxee nee na mi ngi sant yàlla bu baax di sant sëriñam sëriñ taxaar bu baax di sant mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ci kër sëriñ Sonia bu di ay e, bokk di ay taalibe e, di ñaan yàlla bis bi fekki fekkaat nu fi déwén nu bokk fi teew jóge ci weeru tedd wii nga xam ne li ci suñu borom santaane lépp mënuñu ko waaye ñoo ngi doon jéem suñu kem kàttan kon noo ngi ñaan yàlla nangul nu ko ci barkeb Serigne Touba euh, def ngeen ko ci anam goo xam ne gi nee na seere na ne bàyyi wuleen ci dara ci lu ngeen man ci wàllu jaamu yàlla gi ci wàllu joxe joxe ngir yàlla ci wàllu euh, naafile yeeg koor yi alxuraan ji ak say ji ak fulku bi lépp ne mi ngi dugg ci noppam bis bu set mi ngi leen ci sant di ci sant leen ci santal yàlla di ci santal yàlla di leen ci santal Serigne Touba. ndax non rek lañu ko bëggé kon yalla na ngeen ko yàgg jox ci barke serigne Touba néna mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant talib yi nga xam mom la ko touba sëriñ boole té lu jot lu neñu ñu taxaw temm nañu wara taxawé tak seeni der ba mbir yëpp yéwén noonu ngeen ko défé ci weer wi non ngeen ko def ci la ko jité ci magal serigne sooy bëgg non ngeen ko defee ci li ci to li ñu jup yi jublu ji muy tabaski gi kon néna na ngërëm moom ak yéen daf leen di ak serigne Touba rek mom mom leen boole ak mom ngeen di leen ñaanal ngeen seen kàttan di yokk saa su ne seen taxawaay di gën a dëgër seen pasteef di gën a dëgër seen euh, jubluwaay sëñ bi gën leen ko gën leen koo jàppandalal mboolem lépp lépp lu ngeen ci yëngu suñ bi suñ borom defal leen ci bàkki sëñ ga di yokk ba faw ba faw nag su suñu bi suñu diggante ñu gën a jàppante gën a lu gën a song liggéey bi xam ne taalibe du wàcc taalibe du noppalu kon nañu laxasaayu saa su ne ànd ak sëriñ bi ci liggéeyal sëriñ bi ndax loolu rek moo nu fi bàyyi ndax dama wax bi jaamu yàlla bi ko yàlla bindee ngir jaamu ko jaamu gi gannaaw rakkaay yi moo ci gën a néew li ci des mooy ab liggéey lay doon liggéey boobu nag na doon bu yàlla gërëm loolu nag nan sax dàkk ci jéem a def liggéey bi la gërëm di ci def suñ kem kàttan ci waxtu wu ne ak saa su ne ànd koog sëriñ bi ci gàttal daal ah, jotaay bi jarul guddal ndax liñ ci wax moom na ko ne mën na koo wax ndax mooy soññeent rek kon kenn ku ne soññi boppam rek ci diggante bu boromam ak diggante sëriñ bi ak diggante ay dëkkandoom ak diggante moom njabootam ndax ñeent yooyu ku ko yéwénal rek sa biir yëpp yéwén ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant sëñ bi di ko ñaanal suñu borom ba defal ko ak wér defal ko ak jàppandal defal ko ak woyof ci yaram wi defal ko ndimbal ci kanamam ak gannaawam lépp di ak leer di sant mboolem képp koo xam ne kii itam yaa ngi ci eh, santaaneem di la ñaanal yàlla suñu borom jàppandal la saw yoon xaalal la ko yombalal la ko ci barke Sëriñ salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngeen may sëriñ bi mu dugg ci biir ne day siyaare bu génnee bu taxawee ngeen man koo siyaare wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu